ginnaaw amagul lu koy faaj ñu faagaru to kër ga bi dañu bëgg mu ubbi waat ci diir bu gàtt ndax njàng mi mën a dooraat ci anam yi gën askan wi jëriñu ci senegaal jëm kanam coronavirus nag ñëw na ànd ak i gàllankooram kon nag taxaw temm dafa jot ndax kat coronavirus am na gaaw na soxor na te day rey noon bu ñu dul gis la Sénégal attanu ko waaye nag fu mu yegg nit a ko fa yóbbu kon xeex ak moom mooy toog ci biir kër yi sàlloog santaaney waa kër docteur yi bañ ko may fumu lawé nga ngalawaay buñu ko may yoon ndax njang mi ak njàngale mi ci Stop Covid-19 je reste chez moi et j'apprends à la maison.